sujet bi nekk na sujet boo xamante ni ça parle d'actualité mais aussi dafa laal li nga xamante ni moom moo di wàllum diplomatie Pa Assane Seck le député Guy Marius Sagna demoon fële nga xamante ni moom moo di ca CEDEAO ca pincu ndaw réew ma euh, ginnaaw ba mu jëlee kàddu na mu doon waxee ak ni mu doon argumenté taxoon na ay xënte di nay am ci digganteem ak yenn ci ay naataango parlementaire am yu nekk foofu ca CEDEAO loolee noo ko jàngatee balaa ñuy egsi ci yan njeexital la mën a jur ci wàllum diplomatie ci réewum Sénégal xamante ni moom moo di ca Abidjan. waaw gi gi Marius gis nañu ko mu jotee ak euh, kii di représentante Côte d'Ivoire di madame Adja jàllo Diallo ou Traoré je sais plus euh, Traoré defe na mu jotee ak moom ci lan. Mhm. ci déclaration yu gi Marius parce que comme séance séance su CEDEAO la les députés du parlement de la CEDEAO ñoom chaque année dañuy am session yu ni mel. Mhm. donc euh, ren nag gi Marius dafa ñëw gi nag ku ko xam. xam naa ni jëlee na leen kaw. Mhm. xalaatuñ ko woon ci moom xamuñu ko wala buñ ko xamee itam njortu woon ne dinañ egg foofu. Mhm. ce qui se passe c'est que Guy Marius est en de de de à la limite la chute la CEDEAO je vais m'expliquer. Mhm. te li Guy Marius wax ak na mu waxee daanaka population africaine yëpp dañ ko tàccu yekk lu mel ni xeme ndaw si la a son sens. Guimarães dafa dénoncer les chef d'État africains de l'Afrique de l'Ouest que ñoom ñoo appauvrir seen seen dëkkuwaay seen njaboot seen askan. Mm-hmm. loolu la ndaw si mettitlu mais xam nga la vérité léeg-léeg mu fekk la foo xam ne doo ko bëgg a dégg. effectivement mu diis lool lool lool. Mm-hmm. nekk lu metti loo xam ni. Mm-hmm. sa xel du ko du ko attan wala doo ko nangu danga nga naan voilà da nga budde. ce que la dame a moo di budde sauf que. qu'est-ce que Guy a dit que mënul digérer par exemple nekk ci benn parlement boo xam ni c'est ça appartient aux Africains. Mhm. mu am injonction étrangère ñu toog ñoom ci parlement boobu war a toog di fekkee li ñu faa waxtaanee di déglu di voilà di leen orienté. Mhm. li Guy Marius dénoncé moo di ne depuis lustre la CEDEAO et toutes ces organisations africaines ba ci Union africaine ak yooyu dañu dépendre trop ci l'Occident Guy mhm. Marius ne loolu du yoon du dëgg du yoon li Guy Marius di dénoncé moom la africain yu bëri di dénoncé population yi di dénoncé moom moo jur AES alliance des états du moo jur Burkina génn Mali génn Niger génn tey le Tchad est en train de se rapprocher de l'AES alors que Tchad Mahamad Inno ba fa ne Macron mi moo dem installé ko di doomu Idriss Déby ma bokk ci ñi gëm ne ñoom ñoo faat baayam parce que Idriss Déby après 27 ans de pouvoir dafa commencé di wax ne li ñu dal yëpp ñun français yi la yéen la yéen ñu ko teg. Mhm. ba mu defee entretien exclusif France 24 ak euh, RFI wax ak ñoom Christophe Boisbouvier Bouvier ca la am commencé am souci donc trois ans après ñu ne rey nañu ko rebelles yi nangam jaxase ak carte gi. jël doomam teg nag pensant que dinañ ko mën a dominer ngóor si wala xale bi wala président bi dawal tuuti. Mhm. gis la réalité de choses parce que xam nga léeg-léeg mhm. ñu teg la fenn sax bëgg la def loo leen nga gis dëgg bi nga fippu. Mahamad mhm. Idno est en de se libérer il demande c'est-à-dire que il dit au Niger kaay ñu def partenariat sur le pétrole. Mhm. parce que am naa ko ba mu doy le Tchad est immensément riche. Mhm. ba mu defee accord bi ak ak Niger qu'est-ce qui s'est passé français yi commencé mer parce que ñoom français yi dañu dañu dañu dañu touché Patrice Talon. mu tëj pipeline nu Niger bi. digganteem ak Bénin ñuy ut ak Niger Tchad ubbil bunt yi Niger diggante ba le ministre des affaires étrangères de la Russie dem Tchad France mer qu'est-ce la France fait après quelques moment période bi ñu commencé naan non l'année dernière 2023 Mahamad Inno dafa ñëw jënd fa ay costume mhm. de façon voilà boo xam ne jaarul yoon donc il va lan mooy ndeyu juge français mhm. ci ci ci ci deniers publics dëkku jàmbur mhm. au même moment un e, benn Emmanuel Macron di dépensé looloog looloog looloog loolu ci seen ay fonds yoo xam ne ñoom mën nañ ko war a war nañ ko mën a dénoncer. Mhm. te benn juge lijjantiwu ko. gis dañ nekk ci benn continent boo xam ne ak dëkk boo xam ne fippu dafa jot fippu bi lan la moo di xam sa bopp déjà xam ci li nga toog xam li nga yore jëmmal ko loolu la kii Marius def. waa CEDEAO boo xoolee gii bi ma wax ñoom ñëpp ñu ni comme ku ci nekk daal yow mel ni daal kii li muy wax daf leen arrangé wul. Mhm. la CEDEAO a toujours vécu ainsi. c' la CEDEAO des chefs d' état. ça n'a jamais été la CEDEAO des population je prends le cas du Mali ah ah Massa kii euh, Assimi Goïta Assimi jël na nguur gi. Mhm. CEDEAO ne non du dëgg du yoon. ibrahim Boubacar Keïta nekkoon fa. Maliens yi di méttilu CEDEAO ne pat Macky Sall nekk Sénégal di def lu ko neex di faat nit ñi mook ñi mu àndal CEDEAO ne pat moo tax Bassirou Diomaye Diakhar fay le président de la République warul nangu lenn lu ko CEDEAO di sant mu def ko ci ne demal nga wax waa AES ñu ñëwaat ak lu ni mel waru ko sax nangu Guy Marius la mu dénoncé. lan moo tax président waru ko nangu. je j'y arrive ou j'en arrive. Mm-hmm. la tax Guy Marius la Guy Marius dénoncé. mu di que CEDEAO bi ni moo doxee ni lan moo tax président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne CEDEAO dafa laaj ay réformes loolu la Guy Marius Sagna dëggal te loolu boo ko dëggalee tu te rends compte que fii du question sax ay defaraat ak yooyu question de jël seppi la. Mhm. parce que dafa am toujours ku nekk rax leen nekk benn sax parasite boo xam ni moom yàq rek lay def. Mhm. la CEDEAO France dafa nekk ci digg bi. toog ne faax loolu mënut a continuer. kii ma juste ne leen il faut que ñu revoir la donne tubaab yi toog nii ñuy def suñu session lu ñu fay def il a raison ak leneen ak leneen ak leneen dès qu'il a parlé de l'appauvrissement des populations par les chefs d'État mhm. aha madame de la Côte d'Ivoire se réveille parce que ña fa nekk ñu ci bëri il préfère défendre le pouvoir bi leen fa indi mhm. parce que député la ah nguur gi moom permettre ma ñëw fii alors que vous êtes député du peuple vous êtes élu du Euh, sunu autorité yi du ñu nangu dëgg bu ñu leen dee wax. alors que liggéey Maris di wax mooy avantage Afrique. Mhm. mais euh, en terme de relation diplomatique tey réewum Sénégal ak Côte d'Ivoire lan la ñu war a mën a xaar. dara du si xew dara dara lu dul ne. Mhm. lu dul ne parce que ce que la France réussit c'est quoi mooy diviser africains yi diviser Côte d'Ivoire ak Mali diviser Côte d'Ivoire ak Niger diviser Côte d'Ivoire ak Burkina. kon mën nañ ci xaar ay conséquence non c'est-à-dire que se passe conséquence bu ci mënti am. su africain yi yeewul nangoo ko ne def bloc Macron qu'est-ce qu'il dit tout le temps nous devons préserver l'Union européenne mm pourquoi parce que ñoom France am nañu problème mu gaz am nañu problème uranium am nañu problème leneen leneen leneen muy wut wéeruwaay doole xam na boppam mhm. moom moom di wut loolu ñëw na africain yi jaxasoo leen waaw Niger bu kiiwul rek ngeen dem dóor ko bal Burkina noonu Mali noonu tëj leen réseau yi mhm. bloqué leen embargo Sénégal embargo Mali ba pare moom gën a perte sax Mali loolu Macky moo ko def loolu ban façon xel la maanaam parce que tubaab bi loolu la ñu bëgg. ngay toog di dégg ñu ne la kat attention di kilifa yi doon waxtaan ak keroog euh, euh, Free euh, Tigo dañ ko jox Kabiru Mbodj sénégalais la mais no le président Macky Sall ak ñi mu àndal nanguwaat nañ ko ci Kabiru jox ko waaja waaja ñel xaw ma monsieur ñel bi mhm. moom fri tubaab ba mhm. français ba. Mhm. ndax lan ñu ne yéen yaay Macky Sall daf ko promettre woon Hollande. quand vous voyez ça ay chef d'état di ko def bu africain yi jógee fippu am député bu tudd tudd Guy Marius Sagna on a vu le soutien de Abdoulaye Wilane qu'on loue et c'est mm-hmm. excellent mm-hmm. mais qu'est-ce que vous voulez il faut affaire bi changer il faut que ñu dafa am dafa am gis nit si àdduna di nga nangu leen ba mu yàgg nga jékki nga ne mais lu tax may nangu lii c'est ce qui arrive à l'Afrique mais est-ce que Guy Marius Sagna ci ton bi doonoon na ci ton boo xamante ni mën na cee jàllale benn information parce que da doon wax ak rage de colère boo xamante ne moom la doon dégager est-ce que par respect et par élégance mënuta woon a gën a du envers ñi nga xamante ne nii ay naataangoom lañu. alors Guy ne s'adressait pas à ay naataangoom il réprimandait l'attitude de certains chefs d'État par rapport à leur peuple te loolu muy wax opposants yi ne ci dëkk yooyu loolu la ñuy wax les opposants qui sont pas d'accord avec tous ces régimes yi nga xam mais ñoom li ñu wax mooy lan suñu dirigeants yi ni ñu doxalee du dëgg du yoon c'est ce que Guy a dit y a y a aucun mal après on dira le ton le ton c'est Guy il est normalement comme ça donc après qu'est-ce qu'il faut faire am na koo xam ne bu doon moom la peut-être bu doon Wilane mooy dénoncer lu ni mel à un certain niveau dina ko waxee beneen sens. Mhm. Wilane a dénoncé ci beneen sens am beneen lu mu waxee les gens sont différents les uns les autres mais jamais bu doon parlement européen nga dégg le président bi présider séance bi naan waa ji noonu ni ngaa waxee jamais. tubaab yi mën loolu ñun mënuñu ko et l' Afrique a toujours vécu ainsi il faut que ñuy nangu di accepter dëgg bon waa ji wax na dëgg mais ni mu ko waxee quoi certes mën na mettre les formes. Mmh. dans mhm. ce que Guy a dit gisuma ci lu ci malveillant lu ci incorrect il a dénoncé ce qui s'est passé et quand Guy parle c'est la hargne de la souffrance. Mmh. qui est qui mhm. c'est-à-dire qu'est-ce que j'endure qu'est-ce que je vis. Mhm. lan la ma yëg lan la maa dund la metti la mu doon. xaaral ma wane ko fësal ko. Afrique ni moo dundee di Afrique di Sénégal di tous ces pays naa la jox benn exemple. Mhm. Euh, boo xam ni. Mhm. dina la permettre nga comprendre ce que Guy Marius Sagna dit. Mhm. Euh, dafa lu ah. am solo loo xam ne dama la kaa liiral. et c'est capital. Mmh. une poignée de députés du parlement de la CEDEAO veut me museler me faire taire arbitrairement finalement j'ai eu la parole. pour trois minutes. Mmh. trois minutes pour wax si. lu important. effectivement dañu coupé woon micro antidémocratique mais j'ai accepté. voilà mon discours. il y a aujourd'hui de fait au sein du parlement de la CEDEAO une cohabitation entre le panafricanisme du syndicat des chefs d'État qui est un véritable panafricanisme néocolonial au service de la France. Mmh. de l'Union européenne et des autres impérialistes et de leurs intérêts personnels et le panafricanisme des peuples que je représente. Mhm. néocoloniale au sein du Parlement de la CEDEAO mm -hmm. veut étouffer le panafricanisme des mhm. peuples. Allez-vous l'accepter? Mhm. Je suis le député des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Aucun homme ou femme, fut-il ou fut-elle, un président de la République ne peut être plus important que les peuples opprimés, spoliés, martyrisés de la CEDEAO. Mhm. il travaille à une pétition et à d'autres subterfuges pour m'exclure antidémocratiquement du Parlement de la CEDEAO. Mm -hmm. Allez-vous l'accepter? Mm-hmm. Je continue le travail que vous m'avez confié, être le député des peuples de la CEDEAO, être votre député à vous toutes et tous. Mm-hmm. Cette CEDEAO qui ressemble tant à l'Afrique occidentale française, AOF, c'est-à-dire du panafricanisme au service du colonialisme français, nous n'en voulons plus. Mm-hmm. Une autre Afrique de l'Ouest une Afrique de l'Ouest souveraine, démocratique, prospère, juste et unie pour les intérêts des peuples et non des chefs d'État. waaw lii kii Marius Sagna wax lii dëgg la wala du dëgg. dëgg gu wér pee nga. ma jox la beneen. Mhm. pour tëj ci gii. il parle de la Côte d'Ivoire. bi Adja Traoré dëkk. ce pays est le premier producteur mondial de cacao mais n'est le premier producteur de chocolat. y problème. y a problème. il est le cinquième producteur africain de coton mais n'est pas le cinquième producteur africain de vêtements y a problème. Mm-hmm. premier producteur mondial de noix de cajou mais il n'est pas le premier producteur mondial de produits dérivés de la noix de cajou y a problème. Mm-hmm. ceci n'est pas seulement le drame de la Côte d'Ivoire mais de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi il faut sortir l'Afrique de toutes les chaînes qui le sous-développement. Mmh. En 2023, des Ivoiriens ont été emprisonnés pour les autorités ivoiriennes d'avoir sur le territoire africain de Côte d'Ivoire ce la souveraineté ivoirienne la base militaire française. yow ay population parce que dañoo euh, téye ça veut dire quoi. d'après Guy Marius Sagna discours am bi dafa jàppal tànk sax li nga xamante ne nii moom mooy njàmbatu waa Côte d'Ivoire est-ce que réaction bi nii la vice-présidente euh, ivoirienne noonu la waroon a mën a taxawee vis-à-vis de Guy Marius Sagna. plateforme yi ma visité ñaari fan ñetti fan yi ci ëpp africaine yi da ngay gis toujours je suis ivoirien je soutiens monsieur Sagna je suis ivoirienne je soutiens Guy Marius le député de l'Afrique am na sax ñu ko woowee le président de la CEDEAO. Guy Marius vous méritez la station du président de la CEDEAO ça veut dire ce que ça veut dire les populations ont dépassé leurs dirigeants mmh. en Afrique de l'Ouest Afrique occidentale française 1895 à maintenant c'est quoi li ñu njëkk def mooy diviser population yi ñëw ne quatre communes Saint-Louis Dakar Gorée euh, Rufisque mmh. le premier centre ville daanaka 1901 Rufisque a été premier centre-ville daanaka avant même Dakar 1901 après mais fan la ñu yóbbu quatre commune yi nan la mel tey. tey mhm. ñu jaxase population yooyu ak yeneen sénégalais yi ñii sujet indigène léegi nga gis par exemple benn pas Assane bu ne waaye moi je fais partie des quatre communes complexe dugg. de mhm. supériorité soi-disant. qui mhm. n'en est pas qui n'existe même pas. idem pour l'autre après nga nga gis sénégalais bi di toog naan man de ay waaye réewu taax yi seen dund neex na non. et c'est ça qui doit cesser aujourd'hui cette division qu'ils ont toujours prônée moom la tubaab di dox ba tey ba sànq. Mhm. au Mali qu'est-ce qu'ils ont fait entre les Peuls et les Dogons ñoom tubaab yi ak seen ay terroristes jaxase dëkk ba faat ay Dogons jiñ ko Pël yi faat ay Pël jiñ ko Dogons yi. Mhm. ñu jaxasoo seen biir rayante. Mhm. ngay toog di la fay rey nañu cent Pël wala cent Dogons ñoom tubaab yi pendant onze ans ñu nekk Mali nekkee lu ñaaw loolu à plus de cent kilomètres ñu tëjal la Kidal. mu nekk biir Mali yow armée malienne ñu ne la non mu leen fi dugg amu leen accès ñoom armée française ñu nekk fa naan la non terroriste ñoo fi nekk ñoom la ñuy xeexal yéen ginnaaw da di xeex du ngeen bàyyi man ma ñëw ñu gën a am doole ñu xeex. ñu ne non yow ko xeex taxawel ne. di mhm. sàcc seen or yóbbu. tout tralala souffrance boobu plus de sept cents ans l'Afrique noire a été dominée d'abord par les Arabes. Mhm. ensuite par les Européens. Mhm. waaw léegi population yi comprendre la réalité les populations sont arrivées à un seuil de comprendre que Pythagore ak Thalès ak ñoom Descartes ak ñoom Hérodote ñooñu ñëpp ñoom Platon xam-xam bu ñu yor ne ñoom ñoo ko yor du dëgg ay sàcc lañu. Hmm. Égypte lañ dem antique jël fa xam-xam dem reprendre l'ère du papyrus bind. daal na ñun ñoo ñun ñoo nettali histoire ñun ñooy mathématicien ñun ñooy nangam-nangam alors que l' a toujours dominé le monde en termes de savoir. Mm-hmm. loolu nag tey boo demee ba Cheikh Anta xamal la ko ñeneen xamal la ko. te digne fils comme Patrice Sonko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. quest mm-hmm. qu'est-ce qui passe population yi comprennent. Mm-hmm. léegi nag population yi ñoo taxaw nag di dooleel affaire bi. moo tax mu metti ci tubaab yi metti ci seen ay alliés. kooku c'est la réaction que nos chefs d'État certains ont eue benn Macky Sall benn Alassane Ouattara benn Ibrahima Boubacar Keïta yàlla na ko yàlla yërëm des gens comme ça. Mhm. des following nekk ay followers yoo xam daal lu tubaab wax ñu nekk ci. comment vous comprendrez Tigo ñu ne la kat kii di Kabirou Mbodj jox nañ ko ko fay na 80 milliards récupéré na Tigo ba war a tàmbal liggéeyam non ñu xëy bis teggi ka kaka teggi ñu ne non le président la République Macky Sall moom ak ñi mu àndal du jox ko. David Niel xaw nu mu tudd tubaab boobu. dem nañu sax ba Kabirou Mbodj moom ñu jiñ ko ay cas de viol. mais dañ lay indil ko ci li nga xamante ne ay problème la waa France ñu ngi ko fa téye parce que c'est leur stratégie. effectivement lan lañ def Lamine Diack la lâcheté parce que Lamine Diack en 2012 ne leur a pas donné ses JO de 2024 loolu Sénégal presque dañ ko war a xam. que Lamine Diack lu ko France mere moo di 2012 ñoom dañoo bëggoon Jeux olympiques yooyu mu jox Londres joxu leen ka lu tax joxu leen ko ay critères léegi nag ñoom ñu meree ko loolu daal di koy tegal plan lii rek la mu ngi noonu ba tey dañuy daal di wëyal li nga xamante ni moom moo di émission bi sànq ci say biir